jigéen ñu ngi lay fay di la ziare bu baax a baax di nuyu waa KSTV ah, di wax gaañ yi dañuy dem ñu abonné activer li nga xamante ni moom mooy cloche de notification parce que dafa am solo vraiment maa ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziare. waaw loolu moom lu am solo la parce que festival séminaire la ci artiste comédien bi et que bu ñu wootee rek il fallait ñun ñu ñëw dund ak ñoom li nga xamante ni moom mooy événement bi. dafa am solo rawatina onzième édition bi nga xamante ni caada mu ngi ko def donc mu nekk loo xamante ni lu am solo la ndax caada dafay liggéey liggéey bu am solo kon tey bu ñu fi teewee rek suñu devoir la moo tax ñu teew fi daal di dundal ak ñoom li nga xamante ni moom mooy bés bi ambiance bi nag peut-être noonu lañ ñu xamee ay nit la ñu yoo xamante ni fépp fu ñu nekk rek mooy dañuy bëgg nit ñi di reetaan ñuy bëgg di kontaan kom yow ni nga koy defee rek dëgër musóor <laughs> waaw man la euh, Cheikh Omar ah ñu gën maa xam ci Jean loolu du sama turu artiste comédien mais maa ngi tudd Cheikh Omar Kabo. waaw euh, ñu ngi ci téléfilm yi ni nga ko waxee waaye ñu ngi ñu gis ci festival yi ak festival yi yan jàngat lañ ci am waaw mu nekk jàngat boo xamante ne jàngat bu baax la ndax bu njëkk bëri na ay troupe yoo xamante ne dañ fi daan nekk di répété ba sonn waaye du ñu am fu ñu exprimé wu du ñu am fu ñu joué wu te ku ne xam nga ni jour compétition da caa baax. ndax moo lay may force pour ngay mën di continuer fii ak yaa ngi ñëw ci ay bërëb yu mel nii de festival ngay di say morom di jouer nga gis niveau baa ngi yéeg ngay xam théâtre fan la toll ak atelier théâtre yi fiy am ngay xam encore théâtre nan la nan lay doxee léegi maam dafa baax ci euh, acteur di ñëw di di di di di di divertiru ci yu mel nii parce que day tax sa mémoire ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy defaraat ñu koy ñu koy raxasaat daal. bon peut-être am na ay aspects yu bari boo ko ñëwee ci aspect yi nga xamante ni moom mooy nekkin bi nga xamante ni artistes comédiens yi war nañ ko nekk ci festival yi donc loolu faute bi dañu koy teg ci ñaari ñaari pàcc mooy ñi nga xamante ni tey ñu ngi war a jàppale artistes comédiens yi te jàppalewuñu leen. beneen bi ci topp mooy euh, ñi nga xamante ni ñu ngi organiser festival yi donc bu ñu xoolee seen budget festival ñu limité nombre euh, troupe théâtrale yi nga xamante ni ñu ngi leen di invité loolu aussi daf leen di dimbali ci côté bu baax a baax a baax waaye li ci gën a am solo mooy que ni euh, gars yi ñuy gën a jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy organiser festival yi parce que festival yi bu ñu ko defee ñoom dara wundu leen ci lu dul artistes yi daal di daje jóge dëkk dëkk ñëw wane li nga xamante ni tey moom la ñu liggéey ndax nit bi tëju ci këram wala ci salle de répétition yàgg fa lool di liggéey ci ay création tey bëgg na fu mu ko exposé donc yu demee nii di festival wala des spectacles wala nuit di rire foofu rek la ñu mën a ñëw wane bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy liggéey bi nga xamante ni jot nañ ko fa liggéey donc ça c'est très important. waaw parce que loolu euh, Sénégal dañu am ay loi 2020 euh, assemblée nationale dafa voté voté benn loi bu tudd statut de l'artiste et des professionnels de la culture maanaam képp ku nekk artiste ak képp ku yëngu-yëngu si wàllam wàllum mbatit mooy culture loi boobu moo lay tënk. te loi boobu dafa wax leer mooy kii professionnel mooy ki nga xamante ni maanaam aar bi maanaam da si yëngu da si am koppar bi nga xamante ne moo koy dundal maanaam si li koy dundal li si ëpp si koppar boobu noonu ah day jóge si aar bi kooku professionnel la voilà donc loolu professionnel la kooku professionnel la ki nga xamante ni moom day def aar bi wante day def beneen liggéey bi nga xamante ni euh, moo koy dundal maanaam mu nekk mécanicien mu nekk menuisier te après day ñëw di def aar bi te li ëpp li mu si li li koy dundee du jugeew si aar bi kooku amateur la donc loi bi si boppam moo ko wax donc loolu mooy professionnel ak amateur jotewul dara ak ay ak ñàkk ay maanaam dafa am ay amateur yi nga xam ne ñoo gën a ay ay professionnel voilà di nga fekk tamit ay professionnels yi gën a ay ay amateur donc ñun souvent dañuy jàpp ni professionnel mooy ku ay amateur mooy ku ayul bon loolu jotewul dara loi bi lu mu wax dafa leer si wàllum koom la si wàllum liggéey bi ngay def chaque jour la maanaam loolu ngay chaque jour loolu mooy liggéey bi nga xamante ne moo gën a fës si si si yow sa dund mais aussi moo lay rapporter lu ëpp donc loolu mooy euh, différence entre professionnel ak amateur. waaw loolu moom aussi am na solo lool parce que yow daa mel ni da nga luqarte lancu gaa yi parce que loolu nekkoon na ci xeliwu artiste comédien yi. parce que mënoo ni bu ñu ñëwee ci euh, jëm ci mois de novembre jàpp décembre festival yi dafay bari lool ba nga xamante ni day jegante yow da ngay jóge sa kër mën nga toog euh, benn 15 jours wala 20 jours boo xamante ni doo dugg sa kër ci festival yi ngay dem aussi amul budget boo xamante ni dañ la koy jox pour nga bàyyi ko sa kër donc loolu lépp dafay xaw a metti euh, je pense que ni Thiada aussi woote na ci réunion bu mag mag lu yàggul dara daaw Daouda Meng le président ba nu waxtaan ci loolu tëjoo ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy jiite compagnie ak troupe yi pour ñu waxtaan pour defar euh, calendrier culturel ba nga xamante ni tey euh, festival yi dañu ñu xaw a sorianteel date yi donc loolu moom caada liggéey na ci lu am solo euh, lu nu teewee aussi fële ca Mbour la ñu wootee woon réunion bi je pense que ni président compagnie wala président troupe théâtrale yi ñu ci bëree bëri teewee nañ li nga xamante ni moom mooy bés boobu te jàpp naa ni daal fi mu toll nii ci at yi ñuy ñëw dinañu ko régler ba nga xamante ni festival yi daal dina dina xaw a sorianté lu bëree bëree bëri. dañoo bokk ndey bokk baay euh, koo ci laaj tamit koo ci laaj ba mu jox la bu bëri yoonte bu la waatee doo ko mën a jox ndax li ngeen bokk moo tax bon ñun nag dañ koy def parce que suñu métier la dañ ko bëgg donte nag ci lañ war a jëlee dara waaye ñut mu ngi ñuy jaay feneen foo xamante ne bokkul ak fi nga xamante ne mooy ci festival yi ndax festival yi ñu ngi ñëw paas paasa suñu bopp ñëw jouer ba pare nga ñibbi encore paas sa bopp ñibbi. du loo xamante ne dañ koy def muy affaire boo xam ne dañu war jugee ci festival yooyu bi da jóge ci borom festival bi dem ci festival yooyu kon nag mu nekk loo xamante ne lu waroon a am la mais dafa amul parce que ndimbal li nga xamante ne moo waroon di jugee ci kaw moo gaawul wàcc ci ñun des fois li ñu lay jox boo ci dundalee artistes yi daanaka jeex na ñaan ñi des ci bor la ñuy nekk ba festival bi ñëwaat liñ leen liñ leen jot a joxaat ñu fatt bor yi avançaat ci desewaat bor kon kooku doo ko mën a laaj li nga xamante ne mooy xaalis pour mu jox la paas wala mu jox la loo bàyyi sa kër wala nangam ak nangam daal. Euh, festival bi nga xamante ne léegi RICAP la tudd mooy rencontre interculturelle des arts populaires mooy euh, atelier bi ma doon animé depuis démb mooy euh, émotion partager module boobu noonu dama kaa génne si sama benn module bu ma créé bu tudd atelier ndànk-ndànk bi ma doon animé au Maroc bi may nekk Maroc atelier boobu laa doon animé si théâtre de l'opprimé bu Casablanca donc si benn pàcc bu tudd émotion partagée naka la comédiens yi di def euh, ba séddoo seen yéeg-yéegi ñoom ci kaw scène bi mais aussi séddoo ko ak public bi donc si loolu lañ doon liggéey ñu jaarale ko si ay exercices nga xamante ne day nekk ay exercices euh, pratiques exercices pratiques yi mooy exercices nga xamante ne dañuy def manipulation euh, du corps maanaam naka la ñuy modeler yaram bi pour que yaram bi mën a exprimer benn émotion mais aussi si kaddu bi ak li nga xamante ne loolu la ñuy yéeg ñu mën a ko génne en terme d'émotion sans wax ji euh, fës donc depuis démb ba tey loolu la ñuy liggéey ñu egg si processus bi presque si deuxième niveau bi suba incha allah dinañ ko eggali ak benn restitution d'atelier te restitution bi aussi dina compter si euh, naka la ñuy fexe ba euh, ñu mën a partager ak public bi benn émotion bi nga xamante day compatible parce que souvent comédiens yi bëri li ñuy dégager ci kaw scène bi. maanaam public bi lu muy recevoir day différent donc ñun dañuy poser question est-ce que public bi moo décidé recevoir leneen wala comédien bi message bu mu bëggoon jàllale moo jàllul donc si loolu la ñu doon explorer di liggéey ak presque vingt cinq euh, vraiment jeunes yi jóge si région yi bëri vraiment euh, di leen jaajafal di jaajëfal aussi festival Diender. waaw festivalu Jegantoo yi nag festivalu Jegantoo yi wax nga dëgg lu parce que mënta ñàkk mënta ñàkk ku nekk yaay xool li nga xam ne mën nga ko nga ko su ma ñëwalul diw day mer te diw joxu la paas boo xamante ne moom nga fa war a ñëwee bu meree moo xam. wax dëgg fa neex yàlla nit ñi ñëw bi ñëw sa festival da ngay xool fu sori la ñuy jógee ñëwal la joué la nga kontaan sa waa dëkk kontaan li nga bëgg mu am mooy euh, euh, divertir sa waa dëkk li nga bëgg mu am mooy jouer pour sa sa dëkk loolu yëpp day am mais nag waaye des fois kii ñëw fi mu jógee day sori waaye nag boo xalaatee ni yow am nga fa bis yu mel nii sa dëkk da ngay da ngay daal di kalewu ndax ku ci nekk am nga bis boo xamante ne moom nga woote léegi nag yow mi woote. da ngay demal pour ñu ñëwal la. laaj nga lu am solo. non c'est-à-dire que yow loolu ngay gis mais lii sàkkar yàlla la te lu yàlla def ci jaam da koy nangu wala sàkkar yàlla boo am doole boo xamante ni ça apporte des million donc kon ku sañoon ku ne mun nga am sàkkar yàlla bu lay may ay millions donc j'en suis fier ci li nga xamante ni mooy sàkkar yàlla bi ma am. waaw comme li ñuy ko li ñuy li ñuy wax góor ñi naan góor ñi góor jigéen jigéen ñi jigéen caga ku bëgg a nekk ku jigéen kenn mënu laa tee nekk góor jigéen gis nga ku bëgg a nekk caga kenn mënu laa nekk caga loolu yaa ma ko laaj noonu gis nga nit ak nit li ko wutaleeg mala mooy nite nite moo ko wutaleeg mala bu fekkee yow da jël sa bopp basaare sa bopp du man maa la war a ñëw naan la noo saa jugal foofu fi nga nekk baaxul nit da ngay nite da ngay nite boo dajee ay nit say moroomu nit nga xam ne yow nit nga nga sàmm sa bopp sàmm sa euh, sa sa image lan mooy ndayu yow dem ci fenn ku nekk naan la nii nii nga ko waaw ku la ne ku nga ko waaw ah bañ bañ bañ ku mer loolu amul gis nga artiste du dof koo xamante ne xel ngay liggéeyee xel ngay liggéeyee loo def yaa ko tey man du ma woo benn artiste daan ko li nga nekk baaxul artiste amul boo xamante ne dafa dof artiste doful parce que dof du nekk artiste yow mi nga xam ne xel ngay liggéey sa xel baax na sa xel xam nga lu baax xam nga lu bon yow nga juddoo seen kër ba màgg ne léegi nga la ne li nga nekk baaxul foo ko teg saa yi waxu la woon li baaxul sa papa waxu la ko woon fi nga màgg waxu ñu ne li baaxul nga ñëw ba fii ñun ñoo la koy wax du ma ci wax kenn li nga nekk baaxul ku nekk ci li nga nekk yaa xam théâtre kat nag ay góor yàlla ñoo fi nekk ñuy liggéey ñun suñu liggéey may nañu ñu bokk benn nekk di fa sumee ko ñu bokk benn mais pas dañ fay def lu bon parce que ku xam ne ku ne xam nga ne théâtre da ngay sumeeku booy solu sumi solu waaye teewul ñu def defuñ def lu bon def lu bon nag ku ko def yaa ko defal sa bopp yaa xam foo dajeeg sa mbokk dem defal lu waaye amuñu ay góor jigéen ak ay caga ñun théâtre kat yi amu ko ku bëgg a cagoot sa yow sa bopp la doo théâtre kat boo demee sa bopp nga demal loolu def yaa ko def ku bëgg nekk góor jigéen yaa ko demal sa bopp ku nekk sa jikko fan la yare ñun yaruñu kenn de dinañ defar ay jikko waaye yaruñu kenn de ku nekk nit mënul màggee si këram ba ne leen leen ngaaral nga yore yaa ko yar foo ko yare man nga koy lan nga koy wax ba pour yar ko yow su ma la bëggoon dama laa mën a yar ah yow mu am 30 nanga kii 4 40 nangam at ma ne man damay damay ñëw damay defar naan ah théâtre defaraat ku nekk sa jikkoo ngay indi ñu ne la la ñuy wax du pour ñun population bi lañ koy wax ki ñëw man ci man bu dee li nga nekk arrangé ma dama naan sa waay fii góor yoon fi toog demal sa yoon bu dee da ngay cagatu mën a cagatu fi nekk demal sa yoon waaye nag ay kaay ma conseillé laak du ma ko def. yokk te groupe su ñu yokkee rek événement yi bëri groupe yi dañoo yokk groupe yi su ñu yokkee événement yi fa mu bëri li ñu war a def mooy euh, maanaam ñu fexe ba ku nekk mën a am fu muy dem si festival yi parce que su fekkee mu am même su fekkee dix festival rek moo am si at bi su fekkee man kese maa bëgg a dem si dix festival yooyu day métti si man wante mën nañu xool su fekkee ñii lañu invité on tubaab jalaw mais Diender invité ñeneen ñi nga xamante ne bokkuñu ak ñi ni invité woon tubaab jalaw après Euh, Mbacke invité ñeneen ñi nga xamante ne bokkuñu ak ñi ñëw Diender je pense que groupe yëpp dinañ mën a demalante di dëkkalante parce que événement yi man pour man du problème en réalité mais maanaam même group yi ñooy dem si événement yi yëpp loolu mooy problème bi lu tax même groupe yi ñooy dem ça veut dire que quelque part xëy ñi organiser dañoo jàpp ne ñii ñoo am niveau ñeneen ñi amuñu niveau de spectacle yi ñuy soxla donc il faut ñu def renforcer groupe yi pour que ñoom ñu mën am niveau de spectacle yi ñuy soxla fu nekk de telle Euh, même soo demul si benn événement en réalité du fausse événement boobu noonu su ma joxee exemple rek par exemple euh, Toubab Dialaw ak euh, Etu Kajoor presque ñi nga xamante ñooy def carnaval caada yi yëpp mooy ñaar groupe yooyu ñoo si gën a fës te loolu man wax yàgg naa wax ma ne ko loolu dafa bëri ñoom ñëpp mënuñu wër Sénégal la ne ñoom kese di def carnaval il faut ñu am ñeneen yeneen groupe waa Kaffrine war nañ taxawal benn groupe bi nga xamante ne mooy taxawal par exemple bëlëb man comme ça yow soo amee sa festival su fekkee waa Toubab Dialaw mënuñu ñëw nga invité waa Kaffrine ñoom ñu ñëw su fekkee ñii dañoo son ñee dem donc je pense que globalement loolu la ñu war a def mais beneen aussi réfléchir si benn calendrier caada keroo def nañ calendrier à Mbour teeroo dañoo dem Mbour réunion ñaari fan réunion ñen ba pare ba def calendrier festival yi am biir caada am nañ ñeneen ñi nga xamante ne seen date yi dañ koy décaler loolu waxtaan nañ ak responsable de groupe calendrier bi génn nañ incha janvier dinañ génn calendrier bi comme ça nit ñi dinañ xam janvier ba décembre yan festival la ñu am ak yan événement la ñuy am au niveau du Tchada comme ça nit ñi déjà dinañ mën a préparer wu par rapport à événement yi dara du leen si bett donc côté boobu aussi ñu ngi siy liggéey ak euh, bureau national Tchada pour que ñu mën a aussi contenu bi ñu am calendrier bu fixe waaw cant ak ngërëm ñeel na képp koo xamante ni tey yaa ngi ci festival bi nga xamante ni moom mooy festivalu caada di gërëm bu baax euh, compagnie bi ma nekk muy compagnie keppaaru Sénégal euh, waaye nag di gërëm ki nga xamante ni tubaarkàlla moo ma bàyyi ba ma ñëw fii muy aw buur këram ak ñaareel xaritu jëkkëram tubaarkàlla waaw waaw duma laaw wi duma laaw samba du laaw fii ku fi laaw jox maw jalañ mbaa doo fi ay waayi duma laaw wuy duma laaw samba du la gars yi théâtre rek moom moo ñu yitteel wax naa ko benn bu dul ñaar ni théâtre moo waral ku ñu gis jox ñu cër ba war di jël ci ay dërëm di ñu jox ak yeneen i mbir théâtre toujours théâtre partout théâtre théâtre rek. góor bu ci xeesal ma eh, rëdd say tuñ ba mu xonk man sabab ngañ neew ci du ma la woo mukk di la conseil du ma la woo mukk di la ko boo ci feebaree boo dee sa dëj sax du ma ñëw man du ma xalaat ma ak jigéen ni mu neexee nga bàyyi ko fi nekk ko jigéen ah laajal góor ñi <laughs> waaw ah, di leen jaajëfal di leen nuyu aussi au passage pour seen liggéey bi ngeen def euh, au niveau du de la culture waaw parce que euh, télévision yi bëri nañ Sénégal wante euh, chaîne de télé yi nga xamante ne ñoom dañuy spécialisé aussi la promotion culturelle fexe ba artistes ak événement culturel ci Sénégal vraiment ñu leen di mettre en avant il est important ñu jaajëfal leen di leen encourager di wax aussi état Euh, ak li ñuy laaj si financement ci culture bi nekkul ni acteur yi nekk si compagnie de théâtre yi kese ñoo ko soxla même médias yi nga xamante ne ñooy couvrir événement yooyu ci financement yooyu la ñu war a bokk te loolu am solo la acteurs yi ñoo ko war a porter fépp fu ñuy laaj aussi euh, accompagnement dañu war a laaj accompagnement pour médias yi nga xamante ne ñoom ñoo leen di accompagner parce que sans médias yooyu seen liggéey du fës donc di leen jaajëfal bu baax ba